as it in some books. Mashallah. And we advise people to do good and discouraging them from doing bad deeds. Sing to buy used to help and show pity to humanity. He preached people about their might Cheikhul Khadim musul am jot wala muy am lal wala bànneex bay tëdd mbaa muy tala nelaw Sëriñ Tuba never had a time for sleeping always a bed that Sëriñ Tuba lal bu mosam mm-hmm. day cher lool te am classe lool waaye du ca teg lu dul alxuraan mm-hmm. exerting to Bahat were of high class, despite its high volume. It was still used by Sering Bamba for placing the Quran alongside with the pouring perfume of expensive perfume called Siki. ñu tudd Siki wala oh liba di ko tagg on الناس يا كتاب الكريم أنت حبيبي لميتك موي which means it's yours the only book of God you are my friend. nga déggee dafa mel ne kon loolu nga ki woon ci ba xaw ma je euh, mu mel ne kon yow da nga des da doon décrire ki nga xam ne. moom mooy Cheikhul Khadim. waaw di wax mooy kan. waaw euh, kan mooy waajuram. waaw bu góor bu jigéen. fan mm. la fan la jaar. Mm. Euh, dafay mel ne kon loolu nga doon expliquer foofu. ak lan la doon dox. merci pour ñi nga xam ne. ak ñi ci ginnaawam te comprendre duñ. waaw.